Nafissatou Diouf euh, enseignante chercheur journaliste et euh, directrice générale de la société de télévision du Sénégal. Euh, sentiment de gratitude à l'endroit de le Très-Haut, le Miséricordieux, par la grâce de qui cette nomination a pu avoir lieu. Remercier vivement son Excellence le Président la République, M. Macky pour le choix qu'il a bien voulu porter

dans ce que j'appellerais le document de référence des politiques publiques du Sénégal à travers euh, le plan Sénégal émergent, que sont l'équité territoriale et l'inclusion sociale. Équité territoriale dans l'accès à l'information. Comme vous le savez, la télévision numérique terrestre euh, est une directive euh, de l'Union internationale des télécommunications avec l'accord GEO6. Et justement, cette directive a fait instaurer au niveau des États, notamment de la région 1, Euh, ce qu'on a appelé les opérateurs uniques de Donc TDS en est un. Nous assurons à la fois les missions de multiplexage, de transport, mais aussi de diffusion euh, des programmes, des éditeurs. Aujourd'hui, nous avons 27 éditeurs, 27 chaînes de télévision publiques et Inch'Allah, euh, d'ici l'année prochaine, euh, entrera en vigueur ce qu'on appelle la radio euh, numérique terrestre, la RNT, euh, d'autant plus que la télévision numérique terrestre a bien démarré euh, son déploiement, mais évidemment, comme vous le savez, euh, c'est projet aujourd'hui euh, qui aussi euh, est très challengé euh, point de vue de, de la euh, capacité qu'ont certaines régions à pouvoir capter le donc c'est à nous, justement, et ça va faire partie de mes premiers chantiers, de faire que tous les Sénégalais, de là où ils se trouvent, à travers les 46 départements, à travers donc bénéficier de la TNT. Euh, L'autre élément important, c'est l'inclusion sociale. Comme vous le savez, les politiques publiques euh, donc sont, si vous voulez, euh, euh instituées euh, par le chef de l'État, qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. Et donc chaque Sénégalais aujourd'hui est en droit de savoir comment ces politiques publiques sont managées. Et évidemment, c'est à travers l'information quotidienne ou au quotidien que les populations euh, donc, se rendent compte de l'avancée de telle ou telle politique. Et donc, c'est une inclusion sociale. Aujourd'hui, ça veut dire que qu'on soit un citoyen de Fongolembi, de Kounoun, euh, de Rufisque, euh, de, euh, de Boukot à Ziguinchor ou de Saint-Thiaba à Ziguinchor ou à saint on doit être en mesure de pouvoir recevoir dans les mêmes conditions donc la télévision numérique Donc, et c'est une question de souveraineté nationale, mais aussi c'est surtout un droit constitutionnel parce qu'il est inscrit dans la Constitution le droit à l'information. Vous aviez annoncé une tournée, on Absolument, c'est une tournée, euh, Inch'Allah, Euh, qu'avec euh, les équipes euh, donc de TDS, nous allons faire très rapidement, déjà pour nous rendre compte justement du taux de pénétration de la télévision numérique terrestre après l'extinction du signal analogique. Mais comme vous le savez, l'extinction du signal analogique est assujettie justement euh, au fait que euh, vraiment le signal doit être présent partout. Et donc avant d'éteindre complètement le signal, il faudrait effectivement que nous euh, assurions qu'en éteignant ce signal, euh, des Sénégalais ne seront pas lésés. Et c'est pourquoi cette tournée aujourd'hui s'avère nécessaire euh, au regard euh, de toute l'importance que le chef de l'État accorde à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'équité territoriale. pour revenir justement sur la formation des jeunes, donc l'année dernière, Euh, après euh, la distribution euh, de décodeurs à des foyers donc, que nous avions jugés, et là c'est vraiment donc, la, la statistique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui nous avait donc vraiment euh, euh, toutes les informations nécessaires. Euh, déjà au maillage géographique, nous nous sommes rendus compte en distribuant les décodeurs qu'il y avait des foyers qui étaient ce qu'on appelle des foyers, je veux dire, à faible revenu. Et donc le donc le Président de la République, il a été décidé que euh, donc euh, l'octroi de ces décodeurs soit gratuit. Et, mais aussi en, distribuant ces décodeurs, et des, les décodeurs et d'en assurer la maintenance euh, n'était pas une expertise, si vous voulez, euh, euh, vraiment qui était très vulgarisée. Donc il y avait des zones, des communes où c'était très difficile de trouver des monteurs. Et c'est pourquoi, à l'époque, nous avions instauré ce qu'on appelait la formation de jeunes au métier donc, du montage de décodeurs, mais aussi à la maintenance, parce que la maintenance est aussi importante que, que le montage. Et cette première tranche étant La deuxième tranche va nous permettre de mieux organiser ces jeunes qu'on a formés, c'est-à-dire de décupler le nombre de jeunes euh, qui vont être, si vous voulez, des ambassadeurs de la TNT, puisque ce que nous comptons faire avec le fpt avec l'ADPME, avec la DRFJ, e, mais aussi avec le Fonds de développement du service universel, c'est faire de sorte à créer des emplois en instaurant, euh, si vous voulez, des groupements d'intérêt économique avec ces jeunes. On va les organiser euh, dans ces boutiques ou ces kiosques TNT. Euh, vous trouverez par exemple toutes les informations relatives à la vente de décodeurs. vous trouverez aussi l'expertise nécessaire à monter et à assurer la maintenance des décodeurs. Mais aussi, on va développer d'autres services, puisque comme vous le savez, l'extinction du signal analogique conséquence, eh bien, euh, ce sont euh, des données euh, en fait qui finissent. Donc, pour justement maintenir ces données pour donc les opérateurs télécoms, nous avons développé donc ces technologies télévision numérique terrestre. Et donc, justement, euh, ces jeunes vont pouvoir être de vrais ambassadeurs de toute cette politique aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, avec le FD Sud et d'autres instruments comme Sénégal numérique, aujourd'hui, l'objectif donc, euh, du, donc, du chef de l'État, à travers déjà ce qu'on Sénégal numérique 2025, c'est-à-dire à, à l'horizon vraiment 2025, c'est que qu'il y ait une majorité, une masse critique que comme vous le savez, Internet c'est important, ça permet non seulement de s'informer, mais en même temps ça permet, de développer euh, d'autres euh, donc d'emploi des jeunes, on sait toute euh, euh, donc dans la vie des

vous euh, posez aujourd'hui une question très importante. Euh, c'est la question justement de la compétitivité de la TNT euh, avec d'autres, j'allais dire, d'autres technologies. Et effectivement, vous le faites bien de le relever. Et c'est pourquoi d'ailleurs, du point de vue du volet communication et vulgarisation de la politique de la TNT, nous allons nous atteler avec l'expertise nationale. Et je lance aussi un appel vraiment aux jeunes, parce que c'est leur époque, c'est leur période.

Donc effectivement, avant même de, de, parler parce que la concurrence est là, avec notamment un distributeur dont je ne citerai pas le nom, mais déjà faire connaître la TNT, mais aussi ses innombrables possibilités. Parce qu'à côté justement du euh, technologie qui, avec juste une antenne Yagi, à dire les, les, les, les, antennes râteaux, vous permettent donc euh, de recevoir des au moins 27 chaînes de télévision gratuitement, que vous ayez payé votre abonnement ou pas, vous recevez ça Parce que ailleurs, ce qui se passe chez nos concurrents, vous ne payez pas, vous ne recevez même pas vos chaînes de télévision locales. Pour moi, ce qui est une forfaiture, puisque l'information est une question de souveraineté. Et après, et après avoir réglé ce problème, euh, l'autre élément d'information capitale, c'est qu'aujourd'hui, de savoir que la TNT, avec la TNT, on va développer ce qu'on appelle une médiathèque nationale. C'est-à-dire que tout ce que le Sénégal compte euh, d'événements, compte d'actualités, eh bien, on va les agréger euh, donc autour d'une technologie qui va nous permettre de pouvoir revisiter notre histoire. Parce que comme vous le savez, euh, les peuples qui sont en avance, ce sont les peuples qui maîtrisent leur histoire, qui sont fiers de leur histoire. Parce qu'avant même de, euh, euh, si vous voulez, de, de euh, la perspective du développement, avant d'envisager le développement, il faut d'abord se connaître. pour mieux savoir justement comment se challenger. Donc voilà des questions que nous allons régler, mais aussi la plateforme TNT. Aujourd'hui, nous sommes euh, justement, euh, et ça c'est un des chantiers importants de TDS, nous sommes en train euh, donc d'envisager de, de, davantage de mettre à jour, si vous voulez, de moderniser nos plateformes euh, pour que la TNT soit, si vous voulez, beaucoup plus alléchante. Il y à la demande, il y a aujourd'hui le fait que euh, vous voulez un programme, mais vous pouvez, par exemple, si vous allez au travail, vous pouvez, euh, euh je, je, veux dire, euh, planifier euh, un programme passe, et puis quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous le revoyez. Et tout ça, c'est des technologies qu'il faut expliquer de manière très simple. Parce que aussi, avec les termes anglais ou avec les sigles, cela peut être compliqué. Et nous allons aussi prendre en charge une directive importante du chef de l'État il faut que nous puissions euh, nous adresser dans les langues nationales. Parce que 70% des Sénégalais eh bien, ne sont accessibles qu'aux langues nationales. Et donc nous allons aussi nous mettre à la page au niveau de TDS pour que cette accessibilité soit de rigueur. ma tënk ko ah en loxo waaw euh, man la docteur Nafissatou Diouf euh, journaliste enseignante chercheur directrice générale de la société de télévision du Sénégal ma am loolu mbégte tey Euh, ginnaaw bi nga xamante ne nii euh, ci ndimbalu yàlla ak yonentam bu tedd bi euh, njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall wóolu nañu ba nommé ñu directrice générale société télévision du Sénégal mu nekk nag nomination boo xamante ni aussi dafa ànd ak ay tegtal ak aussi ay directive directive mooy lan nañu baral liggéey bi nga xamante ni tey moom la te TDS am ci mission bi nga xamante ni nag moom la ñuy lim parce que boobu moom moo gën a maanaam fësal li di information moom mooy accès TNT TNT du benn xarala lu dul xarala boo xamante ne nii dañu ne dañoo gis ne fréquence yi euh, ni ñu koy utiliser euh, bu ñu moytuwul dina jeex te fréquence yi bu jeexee lu ñu naan fibre optique lu ñu naan internet dinañ dem ba xam nga population sénégalaise fii ak i at dinañ dinañ yegg plus de 20 millions. donc plus ñu yokk plus aussi ñuy soxla fibre bi te fréquence yi opérateur télécom yi dañ soxla ba tax na accord Géocis bi nga xam ne euh, moom la Sénégal ak it yeneen i ñooñam ci dëkku Afrique yi ñu naan région une signé ci union internationale de télécommunication dañu ne dañuy développé teg télévision numérique terrestre maanaam ci benn fréquence rek lu toll ci ay ay maanaam ay chaînes yu bëri dina ci mën a dégg te loolu TNT rek moo ko mën technologie boobu nag moo tax tey euh, boo demee euh, ci 46 départements yi dem ci 14 régions yi président daf ñu ne képp koo xamante ni amul TNT dogal leen ko fa non seulement dañ ko fay dugal mais dañ leen di wax lan la TNT di indi si seen vie li muy indi nag benn bi mooy que nga abonné maanaam boo xasee ba abonné wala boo xasee ba jënd décodeur que nga fay abonnement nga ñàkk fay abonnement li nga xam ne moom mooy vingt-sept chaînes de télévision yi da koy am en clair tous les jours loolu nag dafa am solo ndax xam ngeen ne ci wàllu concurrence bi am na fii distributeurs yoo xamante ni ci bitim réew lañ jógee ñoom dañoo ñëw euh, daal di euh, jël li ñu moom ak li ñu moomul di di ñu jaay suñu chaîne alors que nag à côté nag état bi teg na fi dispositif boo xamante ni benn chaîne waruñu ko jaay rawatina chaîne nationale yi donc loolu tamit dafa nekk loo xamante ni lu am solo la lu tax moom solo justement pour dakkal loolu dañuy sukkandiku euh, ci téere bi ñu naan PSE di plan Sénégal émergent nga xam ne tey mooy le document de référence des politiques publiques document bi lu mu wax dafa jël capital humain teg ko ci kaw mooy premier axe bi capital humain nag boo ko jëlee dafa am ñaari pàcc yu am solo équité territoriale ak cohésion sociale équité territoriale mooy lan mooy yow tey ak fépp foo mën ci dëkk moo xam Fongolimbi moo xam Kounoune moo xam Boucoute Ziguinchor moo xam Santhiaba Ndar moo xam fépp ci Sénégal TNT da nga ko war a jot inclusion sociale mooy lan mooy yow tey information da ko war a jot xam nga information c'est-à-dire que nit ñi dañ naan dëgg la on a une chaîne de télévision publique muy RTS on a une radio muy muy rajo Sénégal mais bu ñu fàtte ne euh, éditeurs yi nga xam ne ñoo nekk fii tey muy 27 rawatina RTS ñoom ñëpp ils ont une mission de service public maanaam actualité bi dañ ko war a joxe communiqué conseil des ministres dafa bokk ci li nga xamante ne ni tey euh, toutes les télévisions dañ ko war a génn lu tax ndax moom mooy décliner au quotidien wala bokk chaque semaine li nga xamante ni tey moom la ci sénégalais jox bopp ndax aussi sénégalais ñoo ko votal ginnaaw bi ñu ko votalee nag dañu am euh, un regard ci nan lay doxalee réew mi regard bi nag nan lañ koy amee Euh, li nga xamante ni nan nan lañ koy seggee mooy information information boobu nag dafa war a tam dañ ko war a wasaale ñëpp ci war a yem euh, du rek maanaam ki dëkk Dakar moom mooy gën a informé ko ki dëkk Fongolé bi déedéet donc citoyen yi tamit dañ leen di maanaam tolloole donc TNT dafa nekk loo xamante ni lu am solo la loo xamante ni c'est vrai depuis 2017 ñi ngi créé c'est vrai am na jéego ñu def mais euh, liñ ci gën a bëgg def te loolu la sant mooy ñu gën a fësal liggéey TDS gën a gën a fësal liggéey TNT mais aussi yeneen segment yi nga xamante ne ni dafa bokk tam ci mission TDS rawatina taxawal médiathèque nationale bu mag boo xamante ne ni xam nga tey boo xoolee euh, réew tugal yi fan la ñu rawee mooy ñoom dañoo xam seen histoire dañoo xam seen bopp ñun nag yàlla dafa def colonisation bi ak lu ni mel tax ba ñun dañoo nettali suñu histoire dañoo fas yéene médiathèque nationale boobu ñu ko tegee euh, bu ñu demee INA jël fa la ñu moom jël dem ak dem ak feneen képp koo xamante ni tey yow journaliste da nga soxla bind ci Sénégal doo soxla dem internet dangay ngay dem ci médiathèque bi mu indi la nag loo xam ne dañ ko segg defar ko ba nga xamante ni foo toll di nga ko mën a am ci anam yu rafet moo xam ci wàllu son la moo xam ci wàllu vidéo waaw formation bi foofu laay daanale xam ngeen dañoo tàmbali woon euh, parce que bu ñu xoolee concessionnaire bi nga xamante ni état bi moom la fi tegoon euh, pour euh, mu maanaam wasaare TNT bi Excaf lañ koy wax donc Excaf dafa jëloon engagement ndax état bi moo ko santoon 865 nañ décodeur mu distribué ko mais ca cappaandoo go distribué wul yëpp non seulement distribué wul yëpp mais dañoo seetlu ne ci distribution bi euh, donc da ngay jaay décodeur parce que pour nga am teen ci fa nga am décodeur mais dañoo seetlu ne lu toll ci 1 million foyer ñooñu kenn mu leen jaay décodeur ndax président aussi dafa sukkandiku euh, maanaam ci politique am ci yërmande mu ne nag nii dañ leen di may décodeur mais bi ñu demee leen may décodeur ci commune yi ci département yi bi ñuy distribué dañoo gis ne ñu bëri dañu doon jànkonteel ak ñan ñoo mën a monté donc ñu bëri mënuñu woon monté décodeur ñu bëri mënuñu woon monté antenne rato yi muy antenne yàgg yi donc ñu ne dañuy taxaw seet bu ñu taxawee ànd seeg 3FPT ñu formel ñu avec des experts 1400 jeunes yoo xamante ni non seulement dinañu mën for dinañu mën a monté décodeur mais nañu mën a maintenance phase première phase bi jeex na 1400 yi formé nañ leen dañ ciy liggéey encore ak 3FPT mais dañu bëgg a DER/FJ gunge ñu ci ADPME gunge ñu ci euh, mais aussi euh, FDS gunge ñu ci ba nga xamante ni dañuy placer ci département yi ak communes yi ak fi gën a xóot ci Sénégal ay kiosque TNT yoo xamante ne ni non seulement ay experts maanaam jeunes ñu formé ñoom tam dañuy formé seen yeneen morom ak yeneen experts ñu formé leen donc soxla par exemple ci commune bi euh, benn monteur décodeur da ngay dem ci kiosque tel par exemple kiosque boo xam ne par Ndiankou Ndoye moom moo moom moo dirigé kees bi donc kooku moom moo dirigé kees bi dafa ànd ak lu mat 5 6 personnes voire 7 personnes yoo xamante ni ku ci nekk am nga expertise mais ñoom du ñu yem rek euh, ci monter ak maanaam wala assurer maintenance décodeur dañu nekk aussi ambassadeur TNT dañuy développer aussi yeneen service dañuy nekk aussi vraiment ay jeunes yoo xamante ni aussi vraiment dañuy am dañuy amal njariñ euh, seen réew mais surtout aussi te loolu lañ ci gën a euh, jublu dañuy am emploi dañuy mën suturaal seen bopp jërëjëf merci beaucoup merci